ba ko ba ko ba ko juge bi laajee selon moom li mu tontu ko massage massage yooyu mu doon defaral ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ko dégg ci xel dina ñaaw parce que da ngay est dañ ko violé waaw. ma deuxième question. ah selon moom massage bi la ko doon defaree ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko moom li mu ko waxee ba pare tourné ñu dégg ci ki nga xam ne mooy Aïssatou Ba mu tourné ne moom euh, dégg na ci aji mu ne ko kaay jël ma daanu na beneen bi mooy. Euh, da ngay jug pour xeex ñi nga xam ne mooy jigéen ñi gis nañ Touba am na 27 jigéen ñoo xam dañ leen violé ba tey dégguñu leen ci tamit loolu da ngeen ci buggul wax wala yéen côté Adji Sarr rek ngeen mën a wax wala ci quoi. en fait euh, déjà samay moyens lay xeex man fi mu toll depuis deux mille euh, deux mille vingt et un ba fii ñëw CODAS dafa cotiser CODAS De toutes les activités. Mhm. depuis 2021 je me bats avec mes moyens d'accord Les <coughs> moyens pour les problèmes du Sénégal je me soustraire au ministère de la femme il y a un ministère en charge des questions liées à la femme tu comprends suis volontaire Je def volontaire day xol fu dolem yem rek la mu meuna def mu def ko les femmes de Touba bu ñu génné ci kaw adissa certainement c'est un dossier bu inter bu ñu meuna éventuellement jël en charge mais mënuñu jëlandoo lu bari parce que amuñu budget man dañuy liggéey volontariat kii bu amee ñu ne Adji Sarr kii bu amee jàppale ma etc. Nous, la nous, par nos propres moyens on n'a pas de financement les organisations, financement nous avons am sax ñun amuñu ko te mosuñu ko sollicité wuñu parce que nous def tey mu nekk loo xam dañ ko avec joie parce que suñu réew la Nous compatriote compatriotes. Nous sommes suñu Sénégal mu gën Nous dëgër taxaw maintenant concernant euh, li nga wax ci sàll entendement je pense c'est ce qu'on appelle la perception un événement bu amee man suma koy netal ak yow soo y du bok par exemple yow yaa ko percevoir comme que meun na la lo du viol alors que man j'étais dans la salle j'ai perçu ça comme lui prouver le viol j'ai compris parce que lui prouver le viol ak lui prouver l'incitation à la débauche bi nga xamni mom lañu la ñu xadi Ndeye parce que wax na la ni que massage day am finition moo waral justement euh, Ousmane Sonko mën fa bàyyi manuyoom ba ñu ko laajee euh, ba ñu ko laajee keneen ki tamit ci tuddu Aïcha confirmer, confir dafa confirmer li nga xam ne la Adji wax depuis le premier jour par contre Aïssata Ba aussi faut confirmer que Ousmane Sonko

yaa ngi def ba expliquer lan moo fa am lan lañ fay def mais nit ki bu nga jàpp sa jabar di commencé guddi di ko def nga dem ba yegg si ko mënul ko ko def nga forcé ko mu koy porté la plainte aji bu fekkee dafay massage bi solu yéen solu daal massage bi nii lay demee bu defee massage bi noonu mais loolu warul wax nit ki dafa ci kaw dafay liggéey wax na body body wax na xamu tundi turiant wax na lu nekk massage bi dafa am façon comprendre léegi bu fekkee dafa massé nit ki noonu nit ko ba war a def maintenant pour euh, compléter nous avons wax ni dans nos maisons dans nos bureaux il y a des gens qui sont violés chaque jour de parce qu'ils ont peur de perdre leur source de revenus. Il faut pour promenade de santé dem pour un salaire appeler Hein. C'est la contrainte économique c'est la vulnérabilité économique c'est le manque de possibilités de recours ou de solutions. te xam nga ne xale yi léegi bëri am situation fragilité sociale boobu bés ne nga gis ci même dans les écoles. les élèves continuent dañuy continuer dem te et de ngi leen

Nous sommes le numéro vert Sénégal le numéro 20. urgence pour les femmes victimes d'abus une maison wax ko toujours maison de bo maison espace refuge comme nous muy dans les pays développés xalé bi bu ne trouver un couvert dina dem am mais le problème est qu'elle n'avait pas où aller et ce problème là il n'est pas seulement un problème de c'est un problème de beaucoup de jeunes filles sénégalaises et de femmes sénégalaises et ce problème est à régler en urgence mënul dem taxawanu marché dem shopping qu'est-ce qu'elle va faire elle va trouver des des activités pour douleur et son isolement social. Et on lui reproche ça Vous lui reprochez ça on ne reproche pas. Non, je suis en train de dire, c'est une façon de parler. C'est une question, quoi. C'est une façon de parler. On ne peut pas lui reprocher ça. Parce que l'homme est un animal social. Euh, euh, def na ñaari mois un en pense pas que ñaari at yooyu dafa toog si benn rek. comportement bi ñu gis ci Adji Sarr sous plusieurs casquettes je pèse bien mes mots mais li ma leen wax est-ce que doy na la li ma leen wax merci on passe à la prochaine